mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam niñ koy defee rek ci bokk di nafar ak bokk di fàttaliku tey nag ginnaaw bi nga xamee ne def nañu mawlid mawlid nabi sallallahu alayhi wa ci ñëpp ci ëpp ñëpp ci jullit ñi bokk nañ ko def ngir màggal ak fàttaliku teraanga juróoy ji nga xam ne moom lañu suñu borom defal ci bi nga xamee ne indi na ko moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu doon nag koo xam ne Seydina Muhammad koo xam ne suñ boroom moo ko yaraloon boppam yar gi nag mooy moo ko defoon nit ku mat nit nit koo xam ne dara ci lu muy lu niru ak manqué wala ak mbate nekkul woon ci moom loolee itam nag mu def ko ci ginnaaw ginnaaw boobee ginnaaw ba ko suñ borom defaree loolu mu am ñoo xam ne def na ko ci ñoom ñooña nag ñooy saxaaba yi ñooña saxaaba yooye nag ba mu ko defee ci ñoom loola tax na suñ borom tagg na leen ay tagg yu bari wax na ci alxuraan seeni melokaan melokaan yu bari bokk na ci rek fi nga xamee ne si ci lay waxee ne moom suñ borom yonent bi yàlla la yàlla bi di Muhammad moom ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom day ay nit lañ ñoo xam ne kii seenum noon buñ jàkkaarloog moom danga xam ne jàkkaarloo ñoo seenum noonu waaye buñ nekkee seen biir dana danga xam ne itam ñi ngi ci ñi ngi ñi ngi jàkkaarloog seen i ñu ngi jàkkaarloog jàkkoo jàkkaarloog ñoo xam ne bàyyi nañ leen xel niñ bàyyee seen bopp niñ bàyyee xel seen bopp mu dooru am foo xam ne suñu borom day wax ne ñoom ñooñee day muy saxaaba yi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar yar boobee mu leen yar ñooñu de ñooñu nga xam ne ñoom la yàlla gindi ñooy ñi nga xam ne itam ñoo xam ne ànd nañu ko seen xel di bay jëfandikoo bu baax a baax li di bàyyi xel li nga xam ne moom la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu di ko defee nim ni mu leen ko jàngale di ko doxe itam ni mu leen ko di ni mu leen digalee ñu doxe ko loolu nag tax na am na ci kenn ci saxaaba yi muy Abdullah ibn Mas'ud am na foo xam ne dafay dafay melal yéen saxaaba yi ni nan lañ meloon muy wax nag ne képp koo xam ne da ngaa wax ne da ngaa bëgg a jaar aw yoon nee na jaar jaaral ci yoon wi nga xam ne mooy ñu jiitu woon ci lañ jaaroon ñi fi yàlla jëlee ñooñe mooy mooy saxaaba yi ndax nee na kat boo jaaree ci yoonu koo xam ne mu ngi dund ak yow nee na loolu wóor ndax mën naa doon koo xam ne fitna mën na koo dugg ba tax mu def nu mu bët def wala mu doxe nu mu bokkute na mu war a doxe ndax àdduna da lu ne da cee mën a xew doxeen wu wu ne itam mën na cee ñëw xalaat yu ne itam mën na cee ñëw te loolu mën naa jeexital ci yow ci sa ci saw doxin ak sa ak sa ak ak sa ak sa sa sa ak sa jëfin loola nag tax na ñi nga xam ne nag jaar nañ fi tagg leen ñu xam ne itam bañ fi jaaree ci jëf ji jëf ji yiw rek lañu fi jaare wax ji yiw rek lañ fi jaare doxin bu baax rek lañ fi jaaxe nee na ñooy ñooy ñi nga xam ne ñoo mat a roy ñoo mat a bàyyi xel itam seen yoon woowee ñu jaaroon di ca jaar ndax loolu mooy tax ñu am li nga xam ne mooy xéewal gi leen suñ boroom jox ñooña nag nee na mooy saxaaba yi saxaaba yooyu nag ñooy ñoo gën ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax seeni xol dafa setoon wicc danoo doonoon ñoo xam ne itam xamoon nañ bu baax a baax li nga xam ne moom la leen yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngal te di ko jëfandikoo jëfinu jëfinu rafet te bañ koy jëfandikoo itam dañ koo jëfandikoo ngir yàlla képp amul dara loo xam ne dañ ko ci def ngir de am ngir def def di ko def deflu wala ñuy bàyyi xel kenn wala ñuy bàyyi xel lenn waaye dañ ko doon def rek ngir yàlla loolu nag nee moo tax yonent suñ borom tànn leen ñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi ngir taxawal diine kon nag ñu muy saxaaba yi ñu mat a bàyyi xel lañ ñu mat a nangu seen xéew ngëneel li leen suñ boroom jox itam doon nañ ñoo xam ne itam li ñuy war ci ñoom mooy ñu góor góorgóorlu jéem a jaar fi nga xam ne fa mu jaaroon jàpp ci li xam ne jikko yoo nga jikko yoo nga xam ne moom leneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam yare woon jikko yooyee ñun tam ñu jàpp suñ kéemtalaay kattan seen doxin noonu doon doxee itam ñu jàpp ñu góorgóorlu du yem jéem a dox doxin woowee ndax kat nee na jikko yooyee ñu nekkoon ak yoon we ñu nekkoon mooy wi nga xam ne moom la suñ borom tànn mooy yoon wi nga xam ne itam moom la wax ne mooy yoonu jubbi mu waxaat itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa la taxoon nag yoon saxaaba yi ñooñee mënoon a mel nekk ci melokaanu rafet wi ñu nekkoon mën a nekk ci jikko yu rafet yooyee ñu ñu nekkoon mooy dañoo amoon njiit loo xam ne dafa doon dafa mat njiit ci melokaan wépp moo xam biiram la wala bitim lépp dafa doon melokaan yu mat sëkk yoo xam ne dara ci mata di nekku ca doonoon doonoon koo xam ne itam suñ borom da ko takkal ay ay ngëneel yu bari jox ko itam ay teraanga yu bari ak ak ak ak ak jikko yu rafet yoo xam ne tax na ak jëf yu rafet yu ñuy jëflanteeg ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi ba taxoon na xel xol yëpp xol yu saxaaba yëpp dañoo jëmoon ci moom nangul ko nangoo jeexal itam. seen seen nangoo joxe seen i bakkan ngir moom doon ñoo xam ne itam daaw ñu dégg ak kàddu genn gu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul dañoo gaaw jëfe kàddu googee doon musu leen yonent bi te musu leen a wax dara loo xam ne da leen a jox ndigal wala mu teg teg leen ci yoon lu dul ne loolee dañoo gaaw fas yéene ko def